sur le pouvoir d'achat euh, seeraayu dund bi comme on a l'habitude dund bi dafa cher c'est vrai dafa cher parce que àdduna bi yëpp moo moo am crise tey jii crise bu doy waar mais li dund bi cher cher lan la état bi def pour wàññi jafe-jafe yooyu loolu moom moo mat a seet alors li ñu def ñun déjà si Covid bi xam ngeen ko mu doon le le force Covid fonds force Covid mille milliards yi ñu def pour atténuer les souffrances des populations si la ñu jàppale woon d'ailleurs le secteur privé en partie pour ñu préserver les emplois éviter les licenciements et d'autres euh, mesures qui ont été faites waaye déjà yokk nañu salaire yi pour liggéeykat yi mën a am capacité gën a consommer salaire yooyu si agent public yi 2022 l'État, malgré la conjoncture, a mis 160 milliards, 160 milliards d'augmentation de salaire en deux mille vingt deux Et en deux mille 2023, cette année, cent 159 milliards d'augmentation de salaire. Donc, signalé à 319 milliards. C'est plus que la moitié du budget du Sénégal en 2000 pour l'augmentation sur ces deux exercices. Alors, les produits de grande consommation dañu suspendre taxe ak impôt ci produits yu mel ni ceeb diwlin tous ces produits de base et l'État a perdu quatre-vingt-dix-huit milliards de recettes rien que sur les produits de de première nécessité et loolu ñu ngi ko projeté ren de quatre-vingt-dix-huit à cent quarante-deux milliards de perte de recettes pour ñu bañ a yokk njëg yi compte non tenu des subventions qui sont versées pour certaines denrées comme le pain mooy mburu mi sa mbokk séeréer yi ñoom mbuuru la ñu mbuuru dañ koy tiire bu baax a baax dañu bëgg mu jeex ko mbuuru donc deux cent quarante milliards sont projetés diggante daaw ak ren pour perte de recette trésor parce que jëlatuñ si taxe jëlatuñ si impôt ci prix yooyu cent milliards ñëw teguwaat ci de subvention pour le pain et pour certaines denrées donc loolu je pense que bu ñu nee état bi deful ci dundu gu cher gi c'est que vraiment on n'est pas reconnaissant il ñu reconnaître effort yi ñu def quelle est le gouvernement dans la sous-région qui a fait autant d'efforts pour, pour atténuer la vie chère dans cette crise particulière. Les subventions sur l'électricité, sur les hydrocarbures, malgré prix yi ñu réajusté. Mais jusqu'à présent, daaw on est parti de 735 milliards de subventions. On essaie de ramener à 450 milliards. Mais on subventionne toujours. Le, le pétrole, on subventionne le l'essence, le gasoil, l'électricité. Donc ça, c'est encore 450 milliards sur cette année. Donc lii buñ ko boolee buñ ko boolee électricité bi nga xam ne ñi nekk ci secteur sociaux yi wala économique yi pêcheurs artisanaux wala ñu nekk tailleur ñu yor di consommer war nañu xam effort yooyu ñu def donc si ñaari at mille cinq milliards d'efforts de l'État pour atténuer la vie mille cent quatre-vingt-cinq milliards deux mille vingt-deux deux mille vingt-trois voilà les efforts si wàllu mbéy mi subvention aux engrais et aux semences deux mille vingt-deux soixante-dix milliards pour la campagne agricole de subvention quatre-vingts milliards rien que ces deux produits la de engrais et semence donc sur deux ans pour ces deux produits cent cinquante milliards de subventions mu jëm ci mbéy mi donc loolu moo waral daaw ñu am plus de trois millions six cent et quelques mille tonnes de céréales et cette année on a fait un effort historique de cent milliards pour la campagne agricole parce que comme les prix augmentent si on veut maintenir les mêmes efforts il a fallu augmenter l'enveloppe téeméeri milliards mosul am ci Sénégal ñu koy def ci waajal nawet pour accompagner les paysans les producteurs donc loolu wute na ak bourse de sécurité familiale yokk nañ ko de vingt cinq mille à trente cinq mille bëgg nañu yokk volume bi volume mu ñi am bourse pour ñu yokk leen parce que ba léegi quatre cent mille familles la woon alors bëgg nañ jëm bu ñu ko mënee ba un million de familles. Pour ça, il faut qu'on y arrive progressivement. Rien que les bourses, on a dépensé 112 milliards entre la bourse de sécurité et les cash transferts qui ont été donnés entre Daaw ak ren vous voyez bien que boo boolee loolu yëpp nag le filet social boo ko boolee ci ñaari at yi ëpp na ñaari junni milliards yi ñu def pour vraiment jàppale askan wi gunge leen ci jafe-jafe bi échange des données réelles c'est c'est